ñu ngi amaat mbégte amaat kontaante dellusiwaat fii Sandaga seet si fi benn ndaanaal seet si fi xale boo xamante ne nee naa làmb nañ ko bàyyi xel mu ngi ci seet combat benn defet te ñu ñëw fii fekk ko bërëb boo xam ne fii lay liggéeyee mu ñu gën a féddale ne maanaam mbër dafa war a am métier mbër dafa war a liggéey làmb rek du liggéey parce que loo xamul lu nga xamante xamoo loo si jëlee bala ngaa yeggee fu nga bëgg kon booy jar nañu am métier kii lu mu def nii loolu lu la ba tax na tey avant ñu dem si moom dañuy xool ànd jàmmami dañuy xool ñoo xamante ñoo koy ñu ma jóob ñu dem ñu ah, dem di jëri mbër nañ waxtaan ak ànd jàmm mi nañ waxtaan ak ñoo xamante ni ñooy ay fansam ñooy ay dëkkandooram ba tax na ñu si toogal ñenn si ñu nga xamante ni moom ñooy ànd jàmbaar ñu nga lay siyaar baax. mën nañoo xam tur bi la la mbër loñu mëna wax ci mbër pour gaay sétane seetaan bi waaw caat li mëna wax ci mo bari na moom dinaa bi sante yalla amatu dama wara nuyu may nuyu ñëpp di ñaan li ne Sénégal sa waram jël ko fi caat nak mëna wax ci mom lu bari parce que mëna né à chaque jour chaque fois ñooy ànd foo ci caat di ma gis en tout cas gëm na bopam nangu na entraîner té amna na avenir ci lam dal xam nañ ko ci mom bu baax lo mëna a gaay ci yeen combat am na ñu mën a nga combat xamanteni marqué na la yow waaw combat am combat am ak combat am ak Mama Lamine bi asafurla euh, nu mu tuddati sax combat a bëree maa ngi fa tur bi Aliou Mané combat boobu combat bu mu marqué la parce que dafa am fu mu jógee am combat fu mu doon ñëwaat ñu ko fi doon xaar quoi suñu borom suturaal ko fi à chaque fois bu amee combat da naan kii moom du dara moo ko mën te bu arbitre soufflé moom ñu xam ne lépp dégg la en tout cas ku boppam la daal si lama ku gëm boppam la si làmb ku gëm nee na ku gëm boppam la si kon moom moo ko wax parce que nee na foo ko gis da nga koy gis boo amee loo koy conseil ak loo koy ñaax waaw ma koy conseil moom xam naa ne du bëri parce que chaque jour ñuy en entraînement li may conseil mu gën a concentré waat si lam xam ne am na si avenir daal franchement am na si avenir daal boo ko doon tànnee adversaire yan adversaire nga ko mën a tànnee war na faa mën a dugg ku jógee si Aliou Mané non bëri na bëri na moom bëri na moo instant bi def na preuve si lam quoi te loolu foo xam ne nii kenn da ko war a mun a bañ combat boo ko jox war na see mën a bëree. combat boo ko jox war na see mën a bëree ba tey ñu demaat jàkkaarloo keneen jàmbaar ñu ngi lay. waaw sant maa loo mën a wax si. waaw Thiat ah, moom moom moo moom moom moom ah, moom loolu yàlla na ko yàlla rek la ñu ñaan waaw sa waay yow waaw Thiat de moom nit ku baax waaw mooy loolu mbër mu gëm boppam la aussi mooy loolu yaa ma gën a xam. da ngay dagg tike wala da ngay xaar mbalit waa waaw yow damay teel a dem samp waaw yëngal gësam yaa ma gën a xam taat jox lu ñu lu ñu moom ñib si yaa ma gën a xam mooy loolu. moom ñiib sa ba tax na am na keneen ku ñëw loo ñu mën a wax ci caat ak caat mooy kan waaw caat daa yaa ma gën a xam caat moom xam nañ ko baax a baax borom baax la waaw li mu bëgg daal yàlla na ko may dina xëy sëñ Tuubaa borom baax la am na nit ñee jàmm waaw te loolu mooy nit nit ki moom bay nit ñee jàmm nooy di ko am ba sëñ Tuubaa Mbàkke kon na góorgóor rek entraînement dina baax insha allah ñun ñu si ginnaaw di ko ñaanal ndam rek waaw jërëjëf waaw nek na amateur nak day dunu lamb day siifur lamb ba taxna tay ñu ñoo doxantu seetaan ci seet ci mbeureum waaw seet ci mbeureum waxtaan ak mom Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaw ñi ngi sant ñi ngi ziar bu baax baax di ziar di ziar ñepp di ziar ñi nga àndal ñepp waaw. en tant que amateur nga am mbeur am poulain mu nek ci lamb ji muy caatu jokaar ngeen bokk ben bërëb bu ñu liggéey koku bo ñi wax lo ñu mëna ah, wax ci mom ah koku li mëna wax ci mom bari na euh mën nañu xey tay ba suba di wax ci mom te du jeex koku ko xëy bo xamni yaruna bu yaru limi def respecté na mag ñi respecté na ñëpp moom mooy loolu macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat daal. ñaax loo ñaax si wàllum entraînement bi wala wàllum combat yi. mooy yokk cay doole ñaax yokk entraînement rek fi mu daan jaar mu continuer jaar fa rek dina am ndam allah. dina am ndam incha allah kattan yàlla waaw. waaw koy daaj ngi dañ ko jël champion la ko école ñu lay dara lu bëri. naka coono ñu. man nag mu njëkk baay si en tant que ñu wax sa waaw sama mag la sama frère vraiment nekk grand bu am jom rek liñ xam ci moom parce que sama yóbbu ne moo ñu tax a jóg ci làmb ji ne grand bu am jom xam nga nu nga entraînement beneen saa xam nga li ñu xam ci moom daal ñun suñ ko dee seede sax day nuru leen waa mais li ñu xam ci moom bëri na beneen saa nu nga entraînement ak moom moo ñu ko jàngal euh, bëre bi moo ñu ko jàngal et puis xam nga gëm na li muy def bëgg na li muy def xam nga ci dara sax na yow bokk nañu waar bi am na foo ci jaar. vraiment vraiment man daal du ma def di ko ñaal quoi di def dama koy bàyyee gars yi di ko ñaal daal li mu bëgg si carrière am yëpp moo xam dana ko yàlla dogal barke yonent bi. boo amee loo koy ñaax si wàllum combat yi wala wàllum maye yi na gars yi naan da koy def si ban côté nga koy gën a ñaax pour nga gën kaa fàtte gën yokk leen. non loolu mën na bañ a nekk ay maye parce que des fois da ngay mën a bëre ba da ngay gëm ne mbër mënatu la daan si àdduna xam nga li may wax parce que bërekat nga <laughs> bu ma nee bëri dëgg-dëgg da nga yaakaar ne mbër mënatu la noonu la demee mais du question de maye parce que boo mënee tànk wala dara suñ ko jàppee comme yaa jékku si yaa comprend suñ ko jàppee comme yaa jékku loolu nag mooy làmb quoi amaan nag mbër mbër moom jàpp de déjà gën a wóor mais boo mënee bëree loolu jaaxal la quoi bu fekkee mayal tamit ñu koy ñaax tamit comme ci loolu euh, benn instant mbër moom amul luut ay supporter am amul luut ay fansom euh, bu fekkee ay ñaax la moom xam nga mbër moom dóor jël lañ ci gën a lañ ci gën a taamu. mais am lu ne day am mënin quoi day am mënin day am mënin day am mënin xam nga bu baax li may wax. kon ñee ko déggandoor ah moom it ndaanaa la nekk xale boo xam ne nee naa làmb nañ ko bàyyi xel. ñoo bokk fu ñu nekk nee na la nañ ko bàyyi xel. kon yéen ñu may seetaan wala yéen amateurs yi. Mm-hmm. caatu jokkaara ngoog de mm-hmm. gaa nee nañ ko bàyyi xel ndaanaa la. mu ngi ci sept combat benn défaite la ci am. Mm-hmm. kon mbër ñu ngi lay déggee. rajo ñu dem ah taxaw ba tey kenn koo xamante ne mën nañ ne lépp caat la ñoo bokk dëkk ñoo bokk lépp bu caat ñëwee fii mën nañ ne ci la bokk kon kooku yaakaar naa dañuy mën a wax ci moom lu bari mbër ñu noo lay fay mën nañoo xam tur bi moom waaw Saliou Diop la Saliou Diop. Saliou loo caatu Jokaan moom bu ngeen ma ci laajee dinaa ci sawar parce que sama booy la moom te wax dëgg booy bu baax la itam bu am yéeg-yéeg boo xamante ne wax dëgg marché bi yëpp seen xarit la moom parce que moom moom wax dëgg yàlla booy bu neex a nekkat la boo xam ne ni daal am na yéeg-yéeg yéeg na nit ñi jox na leen ceer te champion la daal. waaw champion la daal. wax si làmbam préparation combat am. ak par rapport ak yow. nekkin bi nekkin bi moom rafet na rafet na lool parce que moom moom rafetal na lépp moom. préparation combat nag moom heure boo amee combat bu ñëwee dina ko yegal ñëpp to itam dina ci def fulaam def ci faydaam def ci jomam. dina entraîné ba boo gisee xam ne kii bëgg na combat bi pare na ko dina mel ni daal maanaam Balla Gaye muy pare combat wala Modou Lo muy pare combat daal cër boobu daal la ko jox day mel ni maanaam ku lekk ay ay daal ay quatre-vingts millions daal lañ ko fay. parce que moom da ciy def jomam ba mu jeex moom. bëree bi bu ngeen amee lu ngeen ko siy ñaax lan la bëree bi maanaam da dafa tàmm di maye tànk si tura dina si am ndam mais mën naa ne combat bu mu ñàkk loolu ko ko ñu waaw daa doon lu mu tam waaye bu ko mënee bàyyi xëj naa mën na ko bàyyi waaye moom moom wax dëgg moom combat man sama xel di parce que moom falu man ma subaa dem stade di ko supporter bu lu may lu may kii parce que damay xam ne moom damay mel ni ku supporter bala gay daal waaw wax dëgg na yàlla moom champion la boo xam ne daal man bu ma demee ci lambam damay kontaan damay xam ne lam ji lee mu jeex du yàgg xanaa waa ji ñàkk a bëre waaye bu waa ji dégalee boppam moom lam ji du yàgg moom balaa yàgg mu jeexal ko waaw. Ah, balaa yàgg am na ci am na ci fula am mm. kon dañuy xoolaat keneen koo xam ko fekk buntu place am dinañ ko jël waxtaan moom tuuti. Ngor bu mu dëkk milieu làmb fu mu dëkk ñu kon kooku kuy suufar làmb la koo xam làmb ba tax na tey dañoo ñëw doxantu woon fii def benn micro trottoir def xool suñu mbër wala seen mbër su ban si lan ngeen koy ñaax jàmba ñu ngi siyaar sant bu bi ñu la fekk mooy maa ngi sant rek ruq di si maa ngi jaay biisu maa ngi en face si jàkk ji moo ñëwee si jàkk ji rek boo laajtee Cheikh Fall mi jaay biisu mar sant rek TDT trois daaru Tansir Fall TDT fii lépp lañ fi jaay na dañuy jaay biisu jaay takkaay lépp loo bëgg rek am na loo ñu mën a wax si mbër caatu Jokaar ndax yéen a bokk nekk si maanaam. Thiaré Diokhane daana la champion la borom baax la amul benn problème champion la si champion yi. di ko ñaanal yàlla defal ko tawfeex rek. defal ko jàmm ji sax dàkk. bu amee loo koy ñaax. ah góorgóorlu yokk entraînement yi sant yàlla bu baax a baax lañ koy ñaanal bu soobee séegoo. waaw kon nu ma la ko waxee ah wu nañ marché ba ànd naag ànd ànd ànd jàmbame xool nañ. wala dégg ngeen tamit la nga xamante ne wax nañ ko si mbër kon léegi du ñàkk après nañ ci waxtaan moom lan la war a yokk ak lan la war a bàyyee tey ñu ngi fii tubaa Sandaga kon ni ma koy faral di waxee Assane Madaras ah waaw centre centre commercial Touba Sandaga premier étage muy Assane Madaras nekk suñu xarit nekk suñu mag tey ñu ñëw fii si bidigam ngeen gis ko nii bitig moo xamante ni mën nañ ne suñ émission bu ne di ngeen gis ñu jaalale ko te foofu lañ koy solo foofu la ñuy defee lépp te ñu ñëw delloo ko njukkal ñëw tourné émission bi fii dalal fi xale boo xamante ne naa leen na ko làmb bàyyi xel am na sept benn défaite mu nekk caatu jokaar nekk xale boo xamante ni làmb na ko gën a bàyyi xel ba mu jëbëri Iba Mar ak léegi yàggul mais dañ gën a waxtaan ak moom làmbam ak tolluwaayam si làmb fan la mbër ñu ngi lay siyaar waaw maa lay siyaar ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari wayjur di ñaanal sam papa fu mu tëdd yàlla na ko fi mu jóge di nuyu waa bawal gépp rawatina waa jokkaan ga ma dëkk di ziar képp kuy béggee caatu jokkaan waa bawal ak waa lambaay ak li ko wër di nuyu sama gars yi waa Sandaga di nuyu waa bawal di nuyu waa Faas di nuyu sama am di jàmm yëpp daal. Hmm. di nuyu sa am di jàmm caatu tur bi lu ko indi. waa caatu jokkaan benn xale la bu juddoo jokkaan yaroo jokkaan màggee jokkaan euh, ñëw Dakar di dan dooleem après affaire lamb neex ko quoi mu dugg ci lamb loolu mo waral mu ne caatu jogan quoi. lamb fi la la wala bawal la la neexee. wa bawal la ma neexee mais man na ni fi la ci duggé carrément parce que bawal ma fi nek football la gënon di def. jour nga wa football la gënon di def attaquant wala góor attaquant dama dugal rek. Hmm. mais après ci lañ dem ben mbapat quoi ben goudi ni ñuy ñuy bëré après may bëré nonu gaay bi may tak ngem sax gaay ak may togn na ma yow euh, football nga gëna man quoi affaire yoy légui ci la bëré ñu gis ne man mi vraiment amna talent te ku ma ma dem ma gëm sama bop nak wa loolu mo waral ma dugg ci lamb tamit. lamb ci bawal la won wa bawal la won dañ dan toog ba guddi ñu dégg fenn rek mu tëgg. Mhm. ñu dem dañ fay ne ba ay 2h 3h di bëré rek duñ la fay dara da ngay bëré bëré bëré ba son rek après mu tass nga dem ñibi quoi bëré bëré ba son mu tass nga dem ñibi mais ba nga démé bañ commencé la fay ngay bëré ay simple di bëré ay mbapat bobu noonu yow naka nga xamé ne mbeur gi mu ngi ñëw. wa parce que man nak lepp lu may dugg dama ci dugg ak fulla ak fayda man duma dugandu ci dara quoi sumay dug ci dara damay dem ba jeex léegi ñu may tëgal ay tournoi di ma fay ay ay 3000 ay 5000 may beure léegi après ci la dem ba ñu tegal ma combat d'or nak non non la def dug ci arène bi quoi. donc def dug ci arène mais avant arène bi mbapat mais fan la ëppee fi la ëppee wala bawal la ëppee. wa mbapat na bawal mbapat na tëngeej même mbapat na dagar fi isa Diba Mar. Hmm. waaw bawal moom mbapat na fa waaw. mbapati bawal mos nga see gagné drapeau wala mos nga see gagné ay ciment comme ni ko booy defee. gagné na ci ay drapeau gagné na ci ay saako ciép waaw. mais yeewagoo si xar wala. non wax dëgg yàlla gañe gu ma ci xar wala nag moom mais nag gañe naa ci ay saaku ceeb ay drapeau ay xaalis. mbappatu Dakar bi adressé nga loon wala Ibamar wala mbappatu koñ la comme ay combat tournoi yi wala nu muy. stade Ibamar la dem naa Ibamar dem naa Grand Yoff mais Grand Yoff jour bi ma demee bëréew ma quoi parce dama guddee mais Ibamar fii mbappat naa fi ay yoonu yoon. Hmm. Ibamar mbappati ay yoonu yoon mos nga naa fi boobu maa ngi daje ak franc franc moo ma génne mu génne la wala dalaa daan non daf ma daan waaw ah, loolu ngay wax mais bul ne mu génne la daf ma daan franc mu daan ma hmm. si mbapat ñen nga fi bëree daan leen mbapat wala ñu daan la mbapat léegi ñu leen di dégg si arène bi waaw bëri na ñoo xam ne nii bëri na maak ñoom mbapat parce que Issa Iba bi bëri naa fekk ay champion bëri na maak euh, bëri naa fekk ay champion yu bëri daal bëri naa fekk ay champion yu bëri euh, Assane Diop dem te yàlla si bëri nañ mbapat man ak moom tëngéej waaw mu daan ma waaw mu daan waaw ñoo koy ñaanal ko ti jégal ko waaw nu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko depuis boobu nga jógee fa arène ban année nga dugg si arène waaw maa ngi dugg arène 2000 2014, 2015. 2014 2015 deux waaw fin saison bi la ko waaw mais dama dama dugg bëri toog benn temps bu yàgg bëri waatu man nag. lu waral loolu waaw parce que tamit xam rek làmb moo mel noonu quoi des fois da ngay bëri toogaat def jàngat parce que boobu moo nekkoon sama premier combat après ci laa ko bëri ba pare ma ci jugee nag dama xaw a feebar. ci laa def ralentir tuuti nag. da nga daanoon wala da daanoon. non dama daan sama premier combat. nga daan après nga feebar. ma daan après ma xaw a feebar noonu ma toog benn temps ba réew ma après ci laa ñëwaat. feebaru feebaru musique loon wala feebaru lan la non du feebaru musique man gaw ma gaw ma yooyu quoi dama jàpp ne dama waroon feebar feebar léegi parce que am na ñuy feebar te bëriwuñ. feebar dire na lu mat deux deux ans wala. non diréwul ay deux ans yooyu ay quelque temps rek la def mais xam nga tamit lam moo demee xam ne nii soo ci duggee am na noo ci war a duggee. te man yàlla dogal na fa ma dëkk man maa fa nekk ki jëkk a bëre stade comprendre nga kon xëy na tamit am na loo xam ne su ma ko yëgee sama yaram war naa mën a defaru ba sentir sama bopp doog a dugg ci làmb parce que tamit euh, man bëgguma di def dara ñu xool gis ma ñàkk ci fayda wala affaire yooyu man lépp lu may def dama ci ànd ak jom ak fula ak fayda quoi moo taxoon ma def loolu quoi def ralentir boobu. nga def ñaata combat nga bëri si arène bi. waaw ma def sept combat six victoires benn défaite. six victoires benn défaite. waaw sa premier combat arène yaa kan la woon. sama premier combat arène man ak parisien bu faas la woon. parisien benn parisien benn. parisien ma dégg ma ne daanoo ko. waaw image yaa ngi fi loolu mën nañ ko seetaan. moom loolu wax de dana daanoo ko de. waaw moom loolu lay wax quoi parce que moom day dugg ci groupe sax di wax. di waat dégg naa ko moo tax ma wax la loolu. waaw moom day wax loolu mais loolu jëruñu ci sori parce que yaakaar naa bilan buñ ko génnee rek am na lu ci am te yaakaar naa saison boobu bi génnee bilan écurie Fass bi ñu génnee écurie Fass nee nañ parisien caatu jokaan moo ko daan bi génnee écurie Bawol nee nañ caatu jokaan moo daan parisien kon seega loolu moom CNG reconnaître na ko kon loolu moom xëy na moom mooy wax loolu mais sax wax dëgg par quatre appuis wala da nga ko duma daan ko wala par décision arbitre wala buuxante la ba tax mu bañ ko moom non du buuxante du par par kaw dañoo xeex mais moom day daw du taxaw day daw du taxaw génn saako yi arbitre bi mu ngi koy wax ne ko yow sa avertissement yi bëri na mu naan ko kon dagg sama xaalis noonu la def mu am cinq avertissement làmb jeex bëgguma di ci wax nag parce du moom laa teg bët quoi vraiment wax dëgg yàlla instant soo ma xoolee xam ne man ak moom du làmb neexut waaw. ba nga jógee ci parisien léegi. bi ma jógee ci parisien bëriwaat naa fi bawal comme niñ koy waxee làmb yooyu ñuy tëgg ñoom pérési am naa fa deux combats deux victoires après ci laa ñëwaat Dakar. ah cette victoire ñaari. ñaari bawal laa ko bëri waa mooy làmbi bawal waaw. mais tamit CNC da koy reconnaître quoi parce que. day am CNC bu Thiès Dakar maa ngi fi daan parisien daan fi Mama Lamine bu écrit asalem daan fi Tafatine bu écrit kaay baax bëri feeg euh, Laye Douar mu daan ma ma bëriwaat waat Aliou Mané numéro 2 daan ko waaw. li ma laaj kan moo la si daan. Laye Dougar moom ma daan Laye Dougar moom ma daan sa ñaata combat la la daane. sama sixième combat la ma daan waa waaw. sixième combat nga njëkk a dégg muñal waa ci laa dégg muñal mu metti ma trop trop trop. billaay lu tax mu lay métti ta nga doon daan doomu jàmbur ñu leen lëng ñuy ñibbi waaw c'est man nag dama gëmoon ne waruma daanu ci làmb heure bi quoi fan nga teg loolu yow ah gëm nga ko teg wala fan non dama gëm sam bopp man gëm naa ne gëmoon naa ne làmb du ci daanu heure bi daal moo tax affaire bi bett ma trop te combat bi ku seetaan ni mu demee xam ne parewu man sax pour ñàkk mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam quoi da doon daan ay doomu jàmbur ñuy dem di ñibbi nga leen ne daan ñu leen lëng ñu daan la nga ne yow yaakaar woon ne war ngaa mën a daanu fii si làmb loolu luñ la la wala wax sama gëm-gëmu bopp la man su may dugg ci dara damay gëm ne lii laa war a jëli te war a àgg te ba léegi loolu am fu ma teg sama bët ci am lu ma bëgg a jëli te ci yàlla dinaa ko jëli bu neexee yàlla noonu laay doxee quoi man gëm-gëm laay demee ba nga jógee sa defee boobu ñu daan la mu miiti la ba nga xëyee naka nga relaxé koñ ba yow non affaire bu garaaw ngay wax di bi ma xëyee am naa problème trop waxuma la bi ma xëyee mais sama téléphone bi ma yeewoo taal ko fekk booy yi montage benn photo boo xëy ne bi ma dugg see ci làmb ji ba toog nii la monté ci bu tay méttee démb neexoon na damaa fayaat sama téléphone damaa jooy si te barki alxuraan man bugguma defet billaay wallaay man nit du ma daan sax ma waayoog moom xaw ma loolu man mbapat sax suñ ko bëree woon soo ma daanee mënoon mënuma mënuma laa bëgg man noonu laay doxee parce que man damaa gëm sama bopp quoi man nit du ma daan ba pare may waayoog moom gëwuma loolu noonu la demee léegi ana moom yéen a ngi déggante wala yéen a ngi bokk si groupe bi comme ni ko mbëri defee non kooku déggante groupe hmm. waaw wax dëgg yàlla déggante wuñ bokkuñu groupe xaw ma ci moom dara mais gëm naa ne tamit dama ko fi bàyyi dem sama yoon parce que bokkuñu hmm. Hmm. ba mu la daanee nga pare toogaat ab diir ñu la caatu jokkaar amaan na làmb defet boobu noonu defaatu la perection ba ngay ñëwaat si beneen sortie bi non defuma pression parce que xëy na làmb ku juumul doo daanu te man damay entraîné bu baax ànd ak samay entraîneur waa écurie Bawol gépp damay ànd ak ñoom ak ku ci mel ni grand Ibou Baye Fallou ñoom Baye Diouf ñooñu suñu lay entraîné mënoo ragal man damay entraîné bu baax contact bu baax de physique bu doy man combat lu mu yàgg-yàgg mënu ma déranger loolu mënu ma tiir loo quoi vraiment. ñaareel dañuy gis sa combat yaa ak say bi ngeen simee ko dañ lay gën a muscler c'est trop mais buñ jàppantee dinañ doog a xam ne yow am nga doole lan mooy waral loolu. waa loolu day am parce que man damay dajeeg nit ci mi sax ñu naan ma kii est-ce que xam ne man maa ko doole. man bëri na ñoo xam ne ñoo ma gën a miskile mais xam naa ne maa la ëpp doole parce que li ne ci man néewul ci ñoom parce que damaa sérieux nag du ma yàlla xam na ko damaa sérieux moo tax ñu ci bëri su ma jàppanteeg ñoom am na adversaire damay bëree ñoom sax ki ànd ak ñoom naa leen kii yaa man mais buñ jàppantee buñ dalantee buñ tàqalikoo nga xam ne dal nga ci kaw góor yàlla. parce que bi Iba Mar bu ma juul maa ngi fa woon combat na trop te a ñëw te tenté nga benn kele boo xam ne tenté nga ko deux fois non loolu di risque ci làmb parce que déggoo li ma la wax may la damay entraîner bu baax man combat mënuma jaaxal lu muy yàgg-yàgg mbay Diouf dalay entraîner loo ba ñi ngay sa morom bëri dañ lay yërëm ne la bàyyi ko ak Ibou fajar 4 heures lañ ma yee ma fekk leen géej ñoo ma naan defal lii ba ñibbi jot ma ñibbi waaw dama mën a bëre loolu loolu du ma jaaxal mais xëy na nag adversaire am na nu ñëwee doo bëgg kut kaa kut làmb ji jeex parce que ñoom duñ bëree noonu mais soo dajee koo xam ne day attaqué comme yow làmb ji mun naa jeex moom boo dajee koo xam ne day damee di wërwërloo tamit il faut combat bi jël temps. waaw noonu la demee. il faut combat bi jël temps mais si biir làmbo tey ñun la am nga combat science entraînement yi foofu naka lay deme ak dugg si àll bi uti mystique ban moo siy njëkk. waaw entraînement moom duñ xaar ba am combat da koo def du ma def même su ma amul combat sax duma ma def deux séances chaque jour wax dëgg yàlla mais damay entraîner bu baax damay dem salle damay dem géej damay dem école mais nag du damay def trois séances chaque jour même su ma amul combat damay entraîner sama waa ji xam na ci dara élément du sëñ Saliou ñooy ànd entraînement chaque jour fii waaw mu bàyyi ma fenn. léegi àll bi après nu muy demee da ngeen jiital àll bi wala affaire yi bëgg naa si ñu waxtaan si tuuti diggante maanaam entraînement yi ak àll bi uti mystique yeeg ñëw ñaari yoon ngeen ko mën a boole. waa loolu jafe na jafewul parce que tam man yàlla dimbali na am na may jàppale ci côté boobu entraînement moom dama koy def naturellement mais su ma amee combat benn cinq jours bi may am dem si àll bi ñëwaat mun naa nekk duma yàqal dara parce que soo jàppee weekend nga dem samedi dimanche lundi mardi ay mercredi yooyu da ngay ñëw su boobaa nag man su ma demee fi may dem ba pare su ma ñëwee duma ma demaat quoi sam booy ñoom ñooy dem jëlali ma loolu quoi. ah yow dem ngay dem déposé tuuru jàmbur rek ñu am lañ la jox nga ñëwaale muslaay yooyu wala nu mu demee. non damay dem wuti ay muslaay quoi man damay dem wuti ay muslaay pas ay tuuru jàmbur ak yooyu damay dem. mais boo demee di nga yóbbaale tuuru jàmbur yi ne diw diw la mais xam nga combat dina taxaw nga dem ba ñëw te doo xam ci ngay bëreel comprendre nga da ngay dem def say muslaay def say ñaan ñëw mais man sax mun naa ne fi may dem bariwul lool lool lool lool quoi. bul wax loolu Jokaar nga dëkk lu ko wër tund boo wax naa fa dem. waaw Jokaar foofu dama fay dem foofu même su dul su doon ton làmb sax dama fay dem parce que fa laa dëkk te dañ ne ko naani ca mm-hmm. meew ma quoi noonu la demee. mos ngaa voyage ba ay côté Fatick wala ay côté Casamance ak yooyu route boobu mos nga mos sëri si préparation combat wala. non sama combat nag wax dëgg yàlla lu ci ëpp su ma demee Touba ñëw dem suñu dëkk ñëw dem ay côté Réfane yooyu xam naa foofu la ëpp lu ma yem daal am naa yu dëkk ay Saalum yooyu quoi yaa ngi dem côté ba di jëflante ñu wala boo yaa ngi dem wala ñu ngi la koy envoyé si oto waaw ñoom nag ñu ci ëpp dañuy nekk Dakar fii waaw fii laay gisanteeg ñoom di fa dem ñu may jàppale bu baax nag hmm. ban combat nga dugg ci si làmb sentir ne combat boo téye nañ la si wala wala tamit sonal na la sonal ne yow nekkoo loolu mosul am moom wax dëgg yàlla mosuñu maa jàpp ci mystique wala xëy na su amee duma ko gëm parce que man dama am gëm-gëm boo xam ne nii même su may bëreeg yow li nga indi sama yoon new ci quoi man damay gëm ne man maa la man te samay maara ñoo man say maara suñ bëree ma daan la man loolu laa gëm waaw. mos ngaa ñëw si làmb ji na mbër mu ngay bëreel sonal nga jàpp nga mus naa moom mus na maa bëri ñaari adversaire yoo xam ne xam naa jàpp naa leen ci gàllaaj moom buñ dugg see nga xam wala bañ taxee si si biir géej bi laa ko xam loolu lan moo la may ah, amee mais tamit dañ la koy expliquer quoi ñi lay ñaanal dañ lay wax soo gisee mu def signe bi lii la soo gisee mais tamit da ngay sérieux quoi pour nga am benn ñaan bi il faut nga sérieux normal waaw loolu dañ la koy wax sax ñi lay ñaanal dañ la koy wax ah, na il faut nga sérieux quoi mbeur da nga wara sérieux tamit di entraîner bu baax tamit parce que lepp hmm al faut nga entraîner sérieux ba tax nak signe yoyep gaay dañ la koy wan mais mos nga tok ñu wolé na la sa combat bi di ñew da ngay ñak nga dem am ci ndam des fois riro bëgg ak sëriñ mos na dal. waaw loolu day am man sumay ma sama combat yu bëree bëri mën na nekk dañ may wax di nga am dañ man na wax di dañ may wax di nga ñak mais tamit lamb la. Mhm. lamb man mara yo xam dañ may wax combat bi baaxagul quoi mais nak lamb la quoi dañuy xex dafa lëndëm. wa dafa lëndëm mais ñom dañuy xex parce que ñom lool moy seen tir quoi man tamit damay yok sama entraînement xam nga yok sama lepp dal te man xamna ni beure baangi fi te xalé la niwuma ma te te ragaluma tak ñu wala ne la am nga combat nga wote Allah bi ñu la lamb ju baaxugul mais bu ci kanemé man na am am changement distance bobu yow noo koy dundee non man nag bokkuma ci nga xamné dañ ñuy xol lu combat du ko jël man dañ may wax combat ma jël ba pare rek suma la woyé nga ni ma combat bi nii ak man la señ bi nañ def ñaan rek parce que lamb la mhm. su ko défé nga d'accord ci ak man ñu sam benn mara bo xam day dem ba day wax lool nee na caatu dafa ñimi manam dafa ñimi risque combat yoy quoi parce que da ko tam def di ci génn mom ragalul lool mom da koy wax wa mais nekkagum bëri ñu tànnal adversaire yo xanaa sa combat combat risque la de wala. non man nekkaguma ñu ni tànnal adversaire nag man bëgguma lu yomb nag. Hmm. parce que gis nga làmb ji ku ci bëgg lu yomb man ngaa daan sans combat mais doo dem fenn il faut nga daan daanan doog a nekk ndaanan da ngay jël ci combat yu métti yi xare rayante jëflante yàlla may ndam ñu xam ne yow mii bër nga quoi. boo ko jógee sa dernier am si ndam gars yi promoteur yi fi ñu toll ak yan adversaire ñoo nekk sa kanam. waaw adversaire yi nekk ci sama kanam moom bari na parce que am na ci ñoo xam ne sax euh, waruma leen laaj Mm-hmm. mais dañu def benn geste boo xam ne nii mooy tax ma ciy wax. Mm-hmm. ku ci mel ni ku ci mel ni Paul bu daaru Paul bu daaru bu kii mu jono daan bi la seer. waaw dafa indi doomu ndeyam Aliou Mané numéro 2 bi ma bëree la 11 janvier Issa Diba Mar. Mm-hmm. te moom bokk nañ fi journée. muy bëree fii de Zalo man may bëree ak euh, Tafatine bu Tëngéej. léegi mu ànd ak moom mu ne ko kii dara newul ci moom jàpp ko daan ko moom loolu la ko digal mu mu ñëw taxaw ma duma ko daan ko léegi moom mi ko wax loolu na ñëw ma duma ko daan ko maa ko man fuuf. moom Paul bu Daaru. barki sëñ Saliou maa ko la de. xam naa loolu mais maa ko man duñ benn. écran bi bu la tiim nga tax ngay wax loolu de. xool ma bu baax yaw xam nga ma du fii nga ma xamee man du ma wax lu ma gëmut. billaay wallaay booy bari na xam ne nii maa leen mën fuuf mais duñ ko bëree ak man. caatu kayre bu Dalifor day mel ni da sonal si lamb de nu mu demee noonu te 3 combats la am 3 victoire. waaw dégg naa benn jour muy wax ci groupe bi quoi di ma di ma di ma cokkaas noonu mais loolu affaire mbër la quoi mais man sama gaay kuñ paré rek paré na quoi man mom lolou du problème. hmm afa poule bu daaro ya-, ñen ñaari adversaire nga nga ñu mëna tégal pour amateur yi sétan mëna xamné xam ne ak yow lambal waaw Fourier na ñew ñu bëré Fourier benn wala Ndandi Fall. Ndandi Fall Ndandi Fall Grand yo Grand Yoff mbooloo wa na ñëw ñu bëré yow da ngay xaru de. da ngay xaru moy lan. Ndandi Fall bu Grand yo ngay laajoo. 1 <laughs> mètre 95 cent et quelques kilos kuma warul mëna bëreel ci lamb amna yow. Ndandi Fall ndaanaan la mané kuma warul mëna bëreel amna man bu gëmee sa bopp war ngaa mën a bëri. gëm sama bopp kay passé naa loolu fi ne leneen la wax lu boogu teg loolu man gëm naa sama bopp bu yàgg doog a ñëw Dakar. doog a ñëw Dakar. Mhm. kon ah ba tey yéen ngi seen lamb cap si biir cap TV waaw leen wax ngeen gën a yokk abonné yi gën a suivre te xam ne affaire yi fii lay neexee mbër looy nuyoo sa am na jàmm yi ak loo leen di tàggoo. waaw loolu nag di ma ci may ma jël temps parce que lamb dafa xaw a ak ñu sant mbër du jeex nag. no dinaa sant bu baax a baax a baax parce que comme ni ma la ko waxee rek làmb di ko sant cinquante deux Jokkaan ban tund la ne nekk. Lambaay ah bokkul si Bawol kon. biir Bawol ak dara bokkul si biir Bawol. Lambaay fu mu kii boppam la. non Lambaay la nekk. Ah. waaw ñun ah. waa Jokkaan bu baax a baax baax di sant ñi may jàppale bu baax nag ku ci mel ni Baye Tafa Grand Yoff Malefal Touba Ameth tin Sandaga dañ koy sant bu baax ibu tin Kër Ma Jabel suñu ko ba Kër Ma Jabel lay jogé ñew di sant sama yaay bu baax yaay omofaim oma fayam yaay job Fass ma sant bu baaxa baax di sant uh, sama yaay kadi ak Aïssa Laye di sant sama gaay may andal sama dom day ku ci mel ñom eliman bu Serigne saliw khadim tin bay Fall bi duma ko fatte dama koy sant bu baaxa baax parce que daf may jappalé ci lu béré béré béré béré wa di santat bu baaxa baax rek di sant waa Sandaga parce que tamit gis na niñ may taxawoo sama mbokki amilay suma amé combat amee combat Sandaga kenn du xey ñepp dañuy ñew ñëpp dañuy ñëw kenn du xëy moo waral may mobiliser di santaat sama waa dëkk bu baax a baax a baax parce que nag ñu ngi may jàppale bu baax tey wax ne maa ngi sant Birima Ndiaye président mouvement servir Lambaye maa ngi koy sant bu baax di wax ne nag jeunesse su Lambaye bi nañ génn jàppale ko quoi parce que àll la fa di ñuul moo fa dim ñax te moom Lambaye la dëkk moom la gëm ñun foofu lañ dëkk foofu lañ gëm moo waral ñu war a ànd ñun ñëpp jàppale ko pour ñu defar suñu gox quoi. pour ñu defar suñu gox CNG yëngu coow li. waaw CNG dégg naa coow li coow li bari na trop. léegi yow en waaw en tant que mbër ni ma ci taxawee mooy comme que CNC affaire du CNC du affaire vote dañuy xool ñoom ñooy xool ke ñuy tabb ñu ñu ñu kii ko ñu jël ko daal mais comme ci làmb la ñu nekk tamit di ci yëngu am na ñoo xam ne nii damay wax ne nit boo koy jox da nga koy jox lu loo xam ne nii da koy koy dundal mais bu ko jox loo xam ne da koy dundee. dëgg la parce que am na ñu nekk ci biir làmb ji. ñu mel nan. non du tudd tur mais am na ñoo xam ne ñu ci biir làmb ji bëgg nañ CNC bi. Mhm. mais xam kenn ku ne sa bëgg-bëgg ngay wax. am na ñu nekkul ci làmb ci biir làmb ji te mm-hmm. leen ko jox kenn ku nekk sa bëgg-bëgg ngay wax nag. dëgg la waaw mais am na ñu nekkul def ci làmb ku ci mel ni Kéba Kanté man xaw ma mm-hmm. mais dama damay gis li muy def ci làmb. Mm-hmm. parce que nag wax dëgg yàlla du ma ne yàlla nuy na gisuma ko. parce que li muy def ci làmb moom lañ gis te bëgg na làmb te xëy na koomam fi mu ko amee du làmb. te mi ngi koy dugalaat ci biir làmb man jàpp naa suñ ko joxoon CNC bi mun na ko doxal normal daal waaw man jàpp naa loolu. jàpp nga loolu. Mm-hmm. bëri bi ñu nekk. Assane Madaras waaw bëri bi ñu nekk Assane Madaras Touba Sandaga. Mm-hmm. premier étage. Mm-hmm. waaw fii la lépp yi yi nga gis li ñuy sañse lu moo lépp fii la ñuy sañse Assane ku mu solalul loo sol day ñaaw. waaw loolu jour mën nga ne si ta émission yi ñu gis yëpp moom moo koy solal muy Assane Madrasa nekk centre commercial Touba Sandaga ko ni ma koy waxee lii ay yëre yu mucc ayib ay yëre neex la bitig bi moo nekk nii te ñu ñëw fi tourné fi émission bi delloo ko njukkal. waaw dañ koy delloo njukkal parce que euh, mm. man damay gis say émission nga naan Assane daf may solal affaire yooyu. Mm-hmm. mais damay gis ngay sol ay affaire yu mool quoi sa ndey yi la quoi ñoom tamit. kon gis nga loolu waaw dama gis affaire yi quoi parce que man lu rafet. Mm-hmm. mais moom sa waay Assane mii comme sañseelut non boo solee set baat bi day wee de. du normal. lu leer ah. fii la madaraas la fii lay xewee mm. ñun fii la ñuy sañsee ñun ñëpp. kon ah. dafa leer waaw. di bëggee waat gars yi di nuyu ñëpp di jox ñëpp tamit rendez-vous naa leen affaire baa ngi nii place baa ngi nii comme ni ñu waxee rek di joxaat ñëpp rendez-vous ak beneen yoon beneen i